bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm waaye yi nga xamante ni ñoom la ñuy jàpp ci mbirum saccage ba amoon ci journal Les Échos nangu nañu liñ leen di jénne teg ca ne rëccuwuñ ci dara pare nañu pour joxe seen bakkan ngir sëriñ Moustapha Sy taalibe sëriñ Moustapha Sy yi nga xamante ne ni waa section de recherche bu gendarmerie nationale jotoon nañ leen a teg loxo ci mbirum saccage maanaam yàqate yu ñu yàqate journal Les Échos ngir ne dañoo publier woon ab information di ci wax ne kii di seen sëriñ dafa am coronavirus ba ma nga ca hôpital principal bu Dakar Dakar ginnaaw bi leen yoon tegee loxo ba mettre leen garde à vue jot nañ leen déglu ci mbir mi ngir xool ana ban lay la ñuy teg ci jëf giñ leen di tuumaal waaye ñooma weddi wuñu ci dara nangu nañ ne ñoom ñoo def jëf ju ni mel teg ci ne lañ ci jublu woon mooy fexe ba yar journal bi di Les Échos ndax ñoom nee ñu bi les journal dafay def ab campagne de dénigrement ci seen sëriñ maanaam dafa yàq derub seen sëriñ sëriñ Moustapha Sy njiital kuréelu Moustarchidine wala Moustarchidaat ñoom juróom benn nit yépp ñu ngi xamle ne ci seeni gët sëriñ moo gën kudul moom mbaa boo ko manee moo leen gënal keneen kudul moom rëcc wuñ ci dara te bu démb doon tey dañ ko defaat ndax du ñu seetaan ñu yëkkati ay kàddu yu dëgguwul di ko teg ci derub seen sëriñ sëriñ Moustapha Sy ñoom nag ay ndaw lañu daanaka ndax seeni at mu ngi toll ci diggante ñaar fukk ak fanweer ak benn at ba tey ña ngi ca loxoy takk ya nekk en garde à vue ca section de recherche ba njort nañu nag ne daan leen defeere ci kanamu procureur ci lu yàggul dara ndax li wér te wóor mooy bile procureur du bàyyi mbir mi mu sedd suñu moywulee daan leen tëj kaso ngir association de malfaiteurs bokk ci kuréel guy defee ñaawteef violation de domicile dugg ci de fait jëf-jëf joo jàpp loxo ci poos waaye itam destruction de biens appartenant à autrui maanaam yàq alalu jàmbur ci fàttali li waral mbir mi mooy ñi nga xamante ne jot nañ leen teg loxo ci mbir mi dañu def ab saccage maanaam dañoo yàqate journal Les Échos te li ko waral du lenn lu dul ñoom jàpp nañ ñee journal bi di Les Échos dafa yëkkati ay xibaar yu dëgguwul teg ko ci deru fa seen sëriñ di sëriñ Moustapha Sy wax ne dafa am doomu jàngoro yi coronavirus ba ma nga ci hôpital principal bu Dakar te waay ndeysaan yi réew mi naa neex nag ku yabu rek def ndànk wax ne sëriñ bi dafa yàqate say bagage des na tuuti ku wax Macky Sall d'accord naa waa APR buñ la jàppee ba bàyyi la waa lii la la tamit mel na ni dëkk bi daala réew mii jikkoy ci jëm boppam ñoo korona jërë ngeen jëf